ñu ngi nekkoon ci téere bu barkeel bi ñuy tuddee kitaabu rimaaxu xisbi rahim wala nuxuuri xisbi rajim li sayidina alxaaj omar ibni saidin alfuuti sëriñ bi nekkoon ci chapitre trente six muy dernière dars bi nga xam yaatal na ko lool ba yow mi nga xam ne bëggoon nga xam kan mooy Cheikh na Tijaan yi Cheikh Omar wax na la ko waaye maanaam moom anticiper na ko ba tontul la loolu tabaarakallahu leer na danañ ko yàlla fayal Cheikh Tiyaan nag sosalul sosaluñ ko dara moom lépp moo ko wax ci boppam euh, sëriñ bi wax ne wa qaala radiallahu anhu سمعت في الحضرة أنه لا يصل إلى أحد بسوء أبدا laa yasilu ilaya axadun bi suuin abadan wa kada baqa fi ismatihi wa siyaanati rabbi xata laqiya allaha rabba wa qaala radi allahu anhu anna annabi sallallahu alayhi wa sallam axbarahu bi qawlihi alayhi salaatu wassalaam bi izzati rabbi yowma alisnayni wa yowma aljumaati lam ufaariquka fihima min alfajri ila algurubi wa maci sabcatu amlaakin wa kullu man ra'aaka fi lyowmayni tuktabul malaikatu ismuhu taktubu almalaikatu ismuhu fi waraqatin min dahabin wa yaktubunahu min ahli aljannati wa qad axbarani bacdu man laqiyahu radiyallahu anhu annahu ma nazala ila ifaadati alxalqi bacdama axbarahu sallallahu alayhi wa sallam bidalika illa bacda qawlihi linnabi sallallahu alayhi wa sallam in kuntu baaban li najaatin likulli aasin musrifin ala nafsihi taallaqa bi fa naam wa illa fa aya fadlin lii fa qaala lahu sallallahu alayhi wa sallam anta baabun li najaati kulli aasin taallaqa bika wa xiina idin taabat nafsuhu li dalik qultu wa min ahami ma yanbagi dikruhu li yantabiha lahu kullu muwaffaqin addaairata alazimata allati awqaa allahu fi hada alcheikh وأهل طريقتي وحزبه الصميم ويتبين لكل ناظر في هذا المحل أنه لا ينكر فضله رضي الله عنه وعن جميع الأولياء وفضل أهل طريقتي على غيره من سائر أهل الطرق ولا يستغربه إلا من غفل عن هذه الدائرة العظيمة وجهل أنها هي دائرة طريقه وفيها يسبح أهلها يسبح أهلها wa kaana masjunan fi sijni aqli aqlihi jahilan yasacuhu bi saati fadli rabbihi wa kawnihi muxtaaran fa yufadilu man yashaa wa yucti man yashaa la yusalu amma yafal fa aqul wa billahi tawfiq wa huwa alhaadi bi manni ila sawaai tariq Mawlana Alxaaji Omar ba tey mu ngi sard maanaam di exposé ngëneel yi nga xam ne Cheikh na Tiyaani am na ko nga xam ne moom kenn wootelu ko moom Cheikh Tidiane ci boppam moo waxal boppam ne am na ko te waxalu ko boppam maamam moo ko wax nee na na ci wax yooyu Cheikh Tidiane yi waxaat na ne sayidul wujud mooy maam sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne ko noppalal sa bopp kenn mënu laa def safaan ci kaw suuf maanaam laa yasilu ilayka mënul agsi ci yow ahadun kenn mënulaa def bi suu in ci lu bon abadan maanaam kon yow mi bañ seex na Tijaan ne danga koy pexeel en réalité kan ngay sa bopp ndax moom moom dañ ko blende xam nga nag lu ñu blende boo ciy dóor sa loxo wala nga fekk lento boo xamee nii kuule nañ ko ba mu dëgër moom xam nga du daanu wala buy daanu dem du yow yaa koy daaneel kon buñ la gisee nga ciy dóor sa loxo luñ ciy xamee sa da nga nar a ñàkk sa loxo rek Cootiyaan nee na yonent bi moo ma wax ne yàlla moo ma garantil ne ku ma mën a def safaan ba mu agsi ci man munul ne man nga ko jéem nag waaw mais loolu ku ko waxoon ci jamono jii dem télé ak rajo ne kenn mënalu dara même boo amee gàllaaj sax est-ce que tojoo ko hmm? loolu képp ku ko wax mag ñi nee nañ dañ la war a seetaan rek ak li nga wax ndax bis boo ne kenn mënalu ma dara guddi googu lañ lay commencé manal ba ba ngay daanu mais Cheikh Omar ne wa kazalika baqa fi ismati mais moom bi mu waxee loolu pare deewul dafa continuer di dund ñu koy gis ñu koy jéemal kenn mënul ko dara di ko jéemal kenn mënul ko dara ba mu am quatre vingt ans te tilewul ma ne quatre-vingts ans ñi ko am xam nga ne mënuñoo wàcc seen lal ñenn ñi yet la ñuy doxee ñenn ñi bu ñu génnee hôpital lañ dem ñëw. kii nag quatre-vingts ans yi ba bi mu koy am da daan dem jàkka-jàkka ñëw di wasifa di xadra di ko diriger boppam kooku bu ne kenn mënalu ma dara. xam nga ne dundam wane na ko tariqaam itam bi mu génnee rek avant dix ans siiw na ci Ouest Afrique ñu naan liidu dem dañ koy fexel bañ ko dalee fexel ba tey ñooñu bis bu jot ñu dee tariqa bi boobu gën a dund loola defe naa moom moom mënatu dem ay xalifaam itam noonu lañ mel kon loolu moo confirmé waxam Cheikh Omar ne ba mu ko waxee ba tey gisuñu ko lu dul mu nekk ci sécurité ak sàmm gu ko yàlla sàmm ba ni muy wuyjee boromam njabootam itam ba tey ñu ngi dem ndax léeg sax ñu jéemal la duñ la manal dara ñu jéemal sa njaboot waaye moom mënaluñ ko dara mënaluñ njabootam dara mënuñu mënaluñu tariqam dara moo tax sëñ Babacar Si di wax ne taxayyara iblisul abalisi xayratan bu amoon ku jommi ci Cheikh Tiyaani du kenn ku iblis ndax moom nee na depuis ba tey mu ngi wër di fowe nit lu ne jéem jéem na ko ci nit di ko man mais bi bi Cheikh na Tidiane yi ñëwee Cheikh moom waxul ak moom dara mës nga dégg combat bu Cheikh séq ak Iblis moom def ko mais mais moom day day tëral plan am rek lu Iblis tëral Cheikh déjoué ko doxal tariqam doxal diineem ba adduna bi yëpp mooy ci ba yow ku mooy ci Cheikh sax Iblis da ngay dégg pexem rek waaye mën nga ko bañ a xam carrément loolu yàlla ñu ko yàlla fayal kon mu mucc ko yàlla garanti woon ba ci iblis ak njabootam loolu c'est visible maintenant da dangay gis ñi toppul seen na yi lu ñu am ci gàllaaj lay jar nañ dem Casamance am na fa waajoo xam bu la sangee kenn du la mën a dara yow kon mën a mën a lañ la dara jëmal jëli weer de Cheikh rek nga wéeru ci gannaaw seex moom doo ci demante fenn am na ñoo xam ne nañ Casamance nee naa nañ dem ba Inde dégg am na fa ñu fa nekk léegi bu fee ngay paas di dem rek ba yow alkane gi nga doon daw moo lay mujj a dal te yaa koy teg sa bopp ndax ku yor gafaka xaalis su bis bu yor nga paas dem te foo dem weexal bu yàggee yaay daane sa bopp yow li nga doon daw mooy daanu finalement yaa mujj daane sa bopp te ndax yow yaa financé sa sa sa sa sa lagoon ni yow yàlla ñu ci yàlla euh, beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax Cheikh na Tiyaani jëhratan ne ko maa ngi giñ yonent bi vraiment moom it wax dëgg yàlla maa ngi koy màggal waaye lu muy wax di giñ koo xam ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun mais teewul mu ngi nekkaat kërug dëgg kërug dëgg ku fa nekk looy looy wax di giñ jaratu ko mais teewul yonent bi pour crédibiliser wax ji ne ko bi izzati rabbi maa ngi giñ ci sama màggaayu borom ak sama teddaange gorom borom ne yowul isnayni bésu altine wa yowmul jumaati ak bisu ajjuma lam u faariquka duma tàggook yow ma ne ak yeneen bés yi mais dafa lu bëgg wax ne ñaari fan yooyu dafa am ngëneel yu yële amul euh, euh, euh, vingt quatre heures yi tudd lundi ak vingt quatre heures yi tudd vendredi duma duma la ci may dara duma tàggoog yow benn yoon minal fajri dala ci fajar ilal xuru bi ba su jant di so mu mel ni cheikh daf nekkoon maam looy def ci man mu ne wa ma yi day ànd ak man ci sama escorte sabatu amlaakin juróom-ñaari malaayika yoo xam ne yor nañu ay dossier dossier yooyu euh, maanaam ñun li ñu miin mooy feuille feuille mais ñoom feuille yi ñu yor ñoom malaaka yooyu sept malaaka yi min dëhabin ci or la en or yor ay plume yoo xam ne en or la cheikh ne loo koy doyee mu ne li ma koy doye mooy kullu man raaka ku gis ci ñaari vingt quatre heures yooyu fil yow may ni ñaari fan yooyu taktubu dina bind malaikatu malaaka yi ismahu turam fii warakatin ci këyit goo xam ne min dahabin la ne xawma lu mën a xew mais kii gis Cheikh na Tijaan yi àjjana la jëm waa ma ne moom ki nga xam ne koo gis dem àjjana moom moom fa la jëm moom xam nga bu amoon fu ñu mën a jëm fu ëpp àjjana moom foofu lañ koy yóbbu loolu moom ngay dégg ñu naan ñaari fan yi ku ci gis cheikh seeram xaraamal na safara mais ci charte nga doon julit am ñu ne jarul nekk jullit yow gis ka rek ndax yàlla du maye di di di képp koo xam ne ni gis nga cheikh na tiyaani te doo jullit xam nga àjjana ku dul jullit du fa dugg yàlla li muy dogal mooy kon bala ngaa dee da ngay tuub te loolu borom fatxu rabbaani nettali na ko ci benn yahud boo xam ne dafa dégg may gi tijaan yi di ko wax ñu cheikh nee na koo gis bisu altine wala ajjuma sa yaram araamal na safara moom fekk tailleur la woon da daan ñawal cheikh na tiyaani te juif la mu ne daal ngëneel googu lu baax daal ñëpp ko bëgg bàyyi bu fexe moom moo ko def exprès bàyyi ba lundi wala euh, maanaam vendredi mu pare ci ñaw bi ne daal da koy yóbbul boppam bi mu yóbbulee ñaw bi boppam ba dajeeg bëkk-néeg bi ne ko ñaw bi laa doon indi mu ne ko mënoon nga ma oo rek comme ni ngaa def mu ne ko bii yoon nag dama soxla sëriñ bi daal bëgg ko gisal sama bopp. ñu ne ko ah, mu ne waaw mu ne ko toogal ci saal bi mu toog ci saal bi sëriñ bi génne mu ne ko daal tey maa la doon indil ñaw bi waaye moom nekk li ne ci xool bi mooy pour Cheikh Tidiane seedeel ko ne gis na ko mu sàkku ci moom loolu mais malaaka yi fekk na ñu ngi ànd ak moom malaaka yi nag xamuñu exception ñu bind turam. waaye ji nee na li ma gëmal may may googu cheikh dund na sax ba faatu yahut bi continuer di ñaw mais dafa jekki-jekki rek ne xelam dafa ne ci lislaam tuub ñu ne déetawaay mu jël tarixa bi dee dem àjjana wala yow juif juif bu tuub foo ko mas a gis fan waa ji ne ma xam ne kon sirru ruya maanaam secret xool ga mu xooloon Cheikhu Tidiane nekk moo ko toppa ba defar ko moo tax jarul nga naan bu ko jullit gisee moom daal ku ko mën a gis rek ndax bu boobaa léegi service yay doxal mbiram ba mu dem àjjana service yooyu ñoom ñoom ñooy aye te loolu yonent bi mu koy wax cheikh dafa waat waaw lii kan moo ko am kenn moo ko am moom yonent bi sallallahu alayhi wa est-ce que ñu ko gis ñëpp dañ dem àjjana te abu lahab xam nga ne ñoo dëkkoon moog abu lahab <laughs> bu dee moog abu jahlin ñoo yaroondoo mu ne ni man laqiyahu radiyallahu anhu ma ila ifadati alxalqi Cheikh Omar nee na man man mas naa am chance dajeeg benn waaye bu dajeeg Cheikh na Tiyaani mais moom moo ma wax moo ma déy na ma Cheikh ndekete secret bi tax mu jóge ci àll ba maanaam ca désert ba ñëwoon ci ville bi ndekete dara taxul woon lu dul garanti gi ko yonent bi garanti woon ne ko ku la gis yaramam xaraamal na safara waa ku am ngëneen gu toll ni nag ku la gis yaramam na safara war ngaa dëkk kaw ga ndax kaw ga ku la foofu ay mbaam ki fas ak ay jur ak garab ñoo fa doon léegi kay yow comme am nga googu ngëneel yow demal ca demal Dakar rek toog demal Dakar ndax ña la bëgg gis bari na torop seen tiyaan daan na toog ndeysaan ba yàgg rek mu rocciku moom dem ba digg marché fees gis nga marché ba léegi ci zaw dem na ba ci zaw yi fekk fa nit ñi gën a bare mu taxaw fa lu weex tal nag danga naan waaw lii lan la ñaari nit ñetti nit ñoo koy xàmmee rek daw jóge seen place ñëw ziar ko loxo yi ñu ootante eh baa ngi nii sëriñ baa ngi nii ñu dema dema dem ba dar ko sécurité bi nag ñëw génn puus ko ci nit ñi génne ko mu doxaat ndànk dellu këram mais ñu bi ñuy xam xikma bi mooy ndekete moom seen tiyaan dafa bëggoon rek waa marché bi gis ko mu dem ba xal bi bu ko masaan jàpp mu naan unzuru ilayya kaay leen ngeen xool ma li tëfuuzu ngir ngeen texe ma ne ku texe texe ba ku la gis texe xam nga ne sori nga yii nag ajuwul ci jël werd de moo tax léeg nga gis tiijaan bu gis morom baax na nag ñankaan seedal ne gis na gis naa la yow kenn laaju la loolu tiijaan dépassé na moom ci boppam lañu war a gis texe waaye moom yow soxlawul nga demate ci kenaan naan kan seedal ma ne gis naa la yow loolu ñi dul tijaan tey jullit ñoom moom ngone lool mais yow tijaan kay la la yóbbu àjjana du lool hmm? bëgg gi nga bëgg seen tijaan rek moo la def wëli wëli kay xam nga ne àjjana la jëm Cheikh Omar nee na loolu la ko waajooj wax ne ko Cheikh da daan jékki-jékki génne pour nit ñi xool ko pour texe te ku xam na ne suñu sëriñ Mawlana Alxaaj Abdul Aziz bu ju dundam noonu la daan def dem na ba mënatul dara waaye ba ci gàmm gi mu mujje fekk 97 dana jóge jagsaaw ñëw dem réception war a ñibbi di wër Tiwaawan keroog mu ngi sol lu weex tal moom mënatul dara mais oto bi daal dañuy yéegal vitre bi mu daw a daw daw ba benn coin mu taxaw fa ñu naan buñ ko xàmmee alaajaab doo ngi ni wër ko wër ko ku ne mu ñaan ñaan bu bu nit ñi sonalee mu dawaat benn benn cinq cent mètres taxawaat foofu mag ña xam dañ ne kii dafa toll ci martaba boobu mooy ku ko gis yaramam xaramal na safara bari na góor gu màgget ñëw ci jotaay ñu naan góor gi mag la mënoon naa toog mënoon naa toog fekk moom la ko fa indi xam na ko ndax nit ñi faw ñu utal leen ay promotion yu leen yóbbu àjjana ndax kenn du leen bàyyi seen bopp mu ne nag lii mooy ngëneelu Cheikh na Tidiane yi kon boo boolee darse démb bi ak bu tey bi muy bi ak bii wax ji mu ngi doog a daanu mooy Cheikh Abdul Qadir Jilaani boobu mu doon wax ak mayam yu rëy yooyu ak tànkam boobu mën a teg naka ci mbag gaay yàlla euh, mu wax la ne moom bu waxee loolu jamonoom la waxoon nitu yàlla itam nangu nañ ko mais Cheikh Tiyaani moom moom li mu waxal boppam fi naa du benn tànk rek hmm? looloo tax Cheikh Omar ne il faut comparer ce qui est comparable léegi nag fi muy tëjee bi dafa mel ni daal Eh, yow mi nanguwul yow mi sa xol nanguwul jaaxle nga ndax ngëneel yi bari na bari goo xam ne ci faslu bi ba yow jaaxal na la ba daal yow bu jegi di nga laajte sax te bari ba tey ñu ngi koy wax cheikh moom mooy kan ba daal may yëpp mu raafle ka rek toog mel ni daal moom rek fi nekk ak moom ay taalibeem léegi nag Cheikh Omar nag di la tëjal benn xalaat boo xam ne boo ko amee rek di nga noppalu mu ne li ma bëgg daal tëjale ko nga xam ne képp ku yàlla defal xel mu rafet ding ko nangu mooy yàlla ku ne xam ne ne moom moo bind jaam yi moom leen am ay gàll leen ay jëf-jëf ay ay wareef ci jaamu koka ku ko jaamu mu teral la ku ko jaamuwul euh, loo dajal muy loolu mais o delà de nag maanaam cadre sharia muy cadre des lois dafa am lu ñuy tuddee euh, xam Euh, bépp financement buy am ci peuple dafay justifiable euh, justifiable euh, ci maanaam justice am nañu droit de regard ñëw xool li nga def bu ñu la épinglé ci organisation internationaux yi wala nationaux yi ñu jëm tëj la n'est-ce pas maanaam dama la bëgg wax ne financement yoo gis dafay contrôlable ba nga xam ne buñ la ci épinglé mën na la jural ay jafe-jafe comme ni mu xewee ci jamono yi waaye caisse noire moom ban justice moo koy kii moo koy contrôler caisse noire kenn amul dara moom daal jox nañ ko borom moom fu ko dugal moo xam parce que kenn du ko contrôler Cheikh Al Hadj Omar nag moom mo la bëgg a jàngal tey caisse noire yàlla yàlla ndeke dafa am caisse noire goo xam ne amul logique maanaam yow yii ngay dégg naan seen tiyaani may yëg yi yëpp bu la jaaxal maanaam du ay julli du koor du kees noiru yàlla la te mu justice amul dara yow dugal foofu rek dem nga àjjana yéen a ka rek lii nag Cheikh Omar rek moo ko mas a leeral maanaam pour wan la ne yàlla dëgg am na ay logique am na ay financement yu mu joxe kenn ku ne dinañ la contrôler après gis nga inna ilayna iyaabum suma inna alayna xisaabu mooy ñi ñi réglé ñooñu xam nga dañoo contrôlable mais ñi nga xam ne caisse noire dañ naa demee àjjana rek ñooñu kenn du leen dara dara dara coot euh, li nag yàlla rek nga ngay mu kàttanam soo ko mën a xam lii man daal Cheikh Omar yàlla ñu ko yàlla mu ne léegi ngëneelu sëriñ bii ak njabootam <coughs> wax dëgg yàlla dina la leer ci jam ne daal ngëneel gi moom rëy na mais fan lay jóge man na la jaaxal ngëneel gi kenn du ko lu dul koo xam ne daal yàlla dafa namul ci yow mbaax ndax Cheikh Tiyaani li mu am ci ngëneel euh, njabootam li am ci ngëneel yow mosoo ko gis ci beneen sëriñ mu am ko gisoo itam li njabootam am beneen taalibe beneen sëriñ am ko loolu nag képp ku ko mën a weddi yàlla daf daf la xamalul xam-xam bii te muy lan mooy xam-xamu daaira bi ñuy wax daairatul fadliya benn cercle restreint boo xam ne nii yàlla da koo bind muy benn daaira benn cercle mu di ci sotti ay mayam di ci sotti ay mayam di ci sotti ay mayam ba ci waxin ñu ne mu ngi tuuru ndax fees yàlla ne ko nag yow maa ngi giñ ne yow cercle bii ñi may dugal ci yow mooy samay niti bopp samay xarit laajuma leen dara moo tax daayiratul fadliya kenn mënu la wax ne lii ngay def pour mériter yegg fa déedéet yàlla daal mooy xool ku ko sook mu jël la roof la ci daayira boobu mu ne nag képp ko xam ne daayiratul fadliya existe na ña fa nekk dañuy féey ci biir may yi euh, léegi nag képp koo xam ne sax xel da tëj nga xam ne sa lépp ci logique la mooy ku julli lii ngay am ku def lii lii ngay am yow wax dëgg yàlla nan nga mën a àttee ñi nekk ci daayiratul fadliya doo leen mën a atte daayratul fadl benn logique rek Cheikh Omar nee na moo fa am mooy innal fadla bi yadillahi yuutihi man yasha jooju na comme bokkoo ci muñ ko waaye ne yàlla mayu ma mayul kenn yaa ngi bëgg a rey nit ñi munul nekk fa yufaddilu man yasha yàlla mooy gënale ku ko sopp dugal ko ci daayratul fadliya wa yuti man yasha mooy may ku ko sopp dugal ko ci daayratul fadliya te laa yusalu amma yafal kenn du ko laaj lu tax nga trier ki dugal ko dugaloo ko ndax man man man man maa mag kii noo man famille bu baax laa bokk yàlla ne sama yoon nekku ci man maay def lu ma neex nee na loolu boo ko xësee xam maanaam critiqueet yi du ma du mën a yombati moo tax yii boo ko xësee jàng doo mën a critiquer tasawuf ak nit sëriñu tasawuf ndax yow loo jàng ba ne lii ku ko nii ngay deme yàlla am na yeneen loi yoo xam ne tëkkuwul foofu te loolu neex naa gëm règle bu ne dafay am règle yi yàlla bind yëpp sharia ñëpp xam nañ ko waaye exception yëgal na la ko yëgalu la ko kii du julli du wor da xam fan la nekk xam nga xamoo ndax xam nga ne ku def lii daal ku or weeru koor ku weeru koor di nga am nangam loolu mooy règle bi mais ñeneen ñi ñi naan feneen xam nga ñoom ci luñ ne moo tax bul àtte Cheikh Omar nee na loolu mu ku ko réere nag sonn nga ci jamono loolu nag la bëgg a tëjee fasl bi xamaa li muy tëjee jar naa tëjee nga noppalu xam ne daal nekkite yàlla lu ko neex lay def mu ne nanga xam ne daayira bi ñuy tuddee daayiratul fadliya wa tilka daayira maknuzatun min waraai xutuuti dawair dafa doon benn daayira boo xam ne yàlla mu ngi ko placé ci derrière toutes les cercles logiques cercle yi nga xam ne nii cercle loi yàlla yëpp yi logique mooy ku def lii yàlla fay la lii ku def lii yàlla fay la lii bi mu defee loolu ba mu jeex dafa bind ci seen gannaaw gannaaw beneen cercle boo xam ne nii hiya daairatul amri wan nahyi wal jaza xayran aw charran maanaam daaira cercle yi nga xam ne nii mooy ku def nangam ma fay la nangam ku bàyyi nangam ma fay la nangam euh, moo xam lu baax la wala lu bon wala itibaaraat yi ak lawazim yi ak muqtadayaat yi daayira yi moom lañ tudde daayiratul umum daayira publique nga xam ne ñëpp ca nekk mais dafa am beneen cercle officieuse bu bokkul ak yu officiel yi yooyu nag la ñuy tudde daayiratul fadliya Cheikh Omar nee na wa sifaauhu subhanahu wa taala yàlla moo ko tànnalal boppam euh, fa yadaaha liman yasha mu koy may ku ko sopp daayira boobu yàlla subhaanahu wa taala dafay sotti ay leer rek leeru ngëneelam an al fadla bi yadillahi faidun min bahril juud jugewul nag ci benn logique lu dul moom dafa am tuur tuur bu muy wax jawaadu mooy ku tabe ki foofu nag bu doon géej la géeju leer la gu muy sotti foofu rek muy tuuru wal karami ak tabem laa yatawaqafu du taxaw mukk fayduha maanaam pression wu faydu leer ba ala sababi wujudin ci amuk dara xam nga koo xam ne dañ ne mu gën a tabe ci dëkk bi commerçant la ñu wax la loolu te pour nga jële dara ci boutique am joxe xaalis ba pare te du la ko wàññil tabe gi fu mu ne ah yàlla bu dee jawaadu la tudd tudd karim mooy ku tabe gi ku baax ki ku généreux gi te ñu yëg ne bari nañu mu lakk la tax mu lakke leen ñoo ko def bari na ñu muy teral la tax ñu mu teral leen ñoo ko def moom tabeem gi léegi anamu kon foomu mu wut benn benn cercle boo xam ne doo def dara dem àjjana xam nga wax naa ko wa dëgg yàlla saxaratu yële njibarkat yi nga xam ne ñoo doon opposé yonte yàlla Moussa mais même ñoom bi njibarkat yi liñ def moom la Balaam ibnu Baura def rek benn la dañ bëggoon daaneel Moussa biñ demee bu Moussa daaneel leen ñoom ñoo waxandoo ne amanna bi rabbi Moussa wa Haroun vraiment lii du masi ndax ñun yàgg nañ ci ñu tuub na mer ne dama leen di rey biñ tuubee ak biñ ñuy matul quatre heures de temps mais ñooñu yëg nga ne bari na ñu ñu ëpp gën a gën a gën a gën a neex kër ci àjjana lan lañ def dootu jotuñu sàbbal sanguwuñu farata julliwuñu ooruñu daayiratul fadli moo leen recruter lii la Cheikh bëgg a jàngale te lii bu nit ñi xamoon noppalu bari na ku la ëpple alal yëgoo coono gum la ëppale loola koo xamee ne balaa xëy mi di passé muy jël caabeem di yëngal yow xëyoon nga ca sa di ba tey sa bureau bay ja yàqu wala ñu yóbbu la benn coulage nga kuulee kuulee soo paree ne non patron bi ñëwul nee na ginnaaw suba lay fay pour journée bi nga dem café goo naan sax doo am waaye jii nag moom balaa yeewu ñu ne mooy directeur général balaa yeewu dix heures mu sangu tànk muy jël kafe ma ki une jot chauffeur bi ñëw dawalal ko ba bureau mu ñëw fekk fa dossier yi mu a bon tey moom je suis peu fatigué signé ñetti dossier ne damay dellu ko damay tëddi te kooku salaire am dina fay personnel bi yëpp salaire am rek mën naa fay personnel bi yëpp xam nga ne coono boobu wax dëgg yàlla personnel bi daj ak waa ji bokkul waa lan moo tax yemuñu salaire loolu moo tudd fadli ngëneel mu wala charte daayira boobu amul charte ñu ne non condition yi ngay ngay remplir pour dugg ci daara bi amul loolu amul loolu wala zawala du jeex itam ñu ne noo toog ngeen fi léegi boobu ba tey yéen lekk ak naan génn leen dem déedéet wala maaniya amul loo koy tere balil amru fiha foofu daal benn logique a fa xew mooy ci alaxtisaasin moo machiatin yàlla daal la neex mu dugal fi kii lii boo ko see xam da ngay noppalu ci yu baree bare baree bëri ndax adduna bi wér na ni ñi gën a sonn fi alal wala wér na ne ñi ëpp a pexe ëpp ñu fi alal léegi da ngay gis koo xam ne bi mu nekkee xale ba ni muy nekk mag ki pexe rek lay dugg dëgg bu ne def na te bés bu jot du am mu ndekki nga xam ne pexe mu bari ak euh, sawar mayewul loolu yàlla daal la muy dugal foofu mooy ku ko sob wala yu baari bi man kaana fi fiiha moom nag boo la fa dugal du la génnati loolu la ñuy wax ne yàlla rus na di maye ba pare di ko nanguwaat euh, mu ne wa fil wa fil uhudi ummun la antahiju amrun la antahiju sirat almustaqim am saqata fi euh, lmaasi fi tariqi alwaxim wala yubali fiha liman ata wala ala ma ata man waqa fi hadi daayira mu ne daayira boobu boo fa duggee ci waxin jub nga ak juboo loolu foofu atewoo ñu lool foofu attewo ñu parce que yow yaa ngi foofu rek moo tax ngay gis ñu naan nitu yàlla sàngam ñu naan laan day jëfe nangam ak naa nga naan day alku alkuwul kooku dafa texe xam nga shérif bii ñu la wax ne la shérif même bu moyee yàlla ba dee àjjana la jëm ab shérif leer mais yow loolu yéene ko rek <coughs> boo xamul nag daayiratul fadliya bii euh, mu ne am saqata fil maasi moo xam kooku mu ngi mu ngi dëkkee mooy yàlla fi tariqi ci yoon al muhim wala yu bali fiya yàlla yoonam nekku ci yàlla daal dana bëgg nit bëgg koo xamee yi mu tere yëpp ci mbaaxam boo ko defoon itam du ko la wàññi dara yow wala est ce que du la yokk sax lu yàlla maye foofu moom moo xam kum koy may ak num koy maye waman waqa fi hadihi daaira ku dugg ci daaira boobu min xalqillahi kamunat lahu saada texe na li waa ji naan échappé na ñooñu la yàllay wax iblis nekk inna ibaad yi laysa laka alayhim sultaan sama gaay yi dëgg mënoo ci ñoom dara donte da ngay jéem iblis lu mu def pour yàqal ñeneen ñi gaay yi même bu leen ka def loo itam du mu jëfet ah bila shaw bin moo amul benn rax ñoom dañoo texe texe à cent pour cent wala wala tarwiin ñooñu kenn du leen terroriser moo tax ñooñu boo leen toog di leen waar dañ lay réew am na ñu mel noonu da ñëw di leen wax yu metti ne da nga leen di waar ñu ne ah <laughs> rombala dem xam ne li ngay wax concerné wu leen xam nga ñi anticiper àjjana di ko dund fii nga bëgg indi leen jëhannam ak li ci aju ñoom ñu ne li ngay wax concerné wu ñu te loolu moom la Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu waxoon euh, faqih ba muy góor gi Cheikh dafa toog ne ko biig de si dama daanaka sama yaram yëpp dafa daw ndax dama xamul lu may def mu nekka ko ah, ci lan mu ne ko dama fàttaliku serat ak ni mu rakloo ak ni mu yëngoo ak ni mu lëndëmee yooyu daal laa tiita tiit biig ba xamatuma lu may def mu ne ko Seybatu yow lu sa yoon ci sirat Seybatu yow lu sa yoon ci sirat yow Seydi Hajj Maalik njabootam dina seen lool waaye demal waay kooku dafa mujj a jommi sax doo ko gis yow doo ko gis kay yow loolu gis looy attardé woon rek di ci xalaat ak tiit parce que looy gis sax xam nga mucc ci sax raglu na mais loolu gis te loolu la Cheikh Tidiane defal jabootam moo tax ñu ci bari dañuy am surprise ndax dañuy dugg àjjana ba am fa 40 millions d'années ñoom di laajante seen biir naan waaye ñun dañ ñu waxoon ne ci àdduna yow man xeewati dina am loolu xanaa ak seegul bu ko defee ñoom Cheikh xool leen ree ndax taawu Tijaan yàlla dafa dogal coonaam mu ngi yem fii ci àdduna léegi bu xasee dugg a bar sax rek te digganteem ak dugga bar sax mën naa bañ a mat sax vingt quatre heures ndax nit mën naa toog tey suba mu dee mais bu xasee dugg a bar sax train de vie wu àjjana lañ koy jox léegi train de vie bi nga nekk ci yow nekk ci yow kenn xamul kay la àdduna tukki mais doo ko yëg foofu bon ñu jekke yeg ne exposé nañ yowmal qiyaamati yow doo ko yëg ñu xëy xëy transféré sa sa sa kii ci automatisme yàlla sa sa logement bi ci barzax moom lañuy la ñuy transféré illiyin yow dinañ la transféré sax te doo ko yëg bon léegi yow pour yow yaay barzax ba tey ndax te ne na fii benn la daanaka di nga jekki-jekki nag yëg ne yëf yi gën na yokku gën na yaatu Euh, ñu ne ñu gëmloo na la nag xëy na fin d'année la dañuy changé waat euh, meuble yi changé kii fekk na yow yow ma xiyam moo taxaw noonu keroog léegi boo fa amee nag quarante million d'années nga ne mais yow ma xiyam bi nga dégg loolu kay boo sonnee ba sonn ñu ne yaa ngi fàttaliku biñ lay changé sa kii sa meuble yeeg sa nangam ak changé la château changé la nangam ñu ne keroog la war yow ma xiyamati ñu ne la xam nga ni kii bokkul ak ki nga xam ne dañ koo jël summi kawam set takk ay chaîne ci tànk yi ba pare juutal ko juutal ko séndal ko ci safara di ko baaje xam nga kooku ku xana yow tey la yowal xiyaamati sax moo koy jëkk xam loolu la Cheikh Omar nag bëgg a leeral muy daairatul fadliya xam naa jafe naa dégg waaye ku ko mënta dégg dal nañ nangu ne rek cee bokkul rek voilà xam nga mu ngi mel ni pouvoir bi nga naan waaw gars yi liggéey ñu fi dara ah lekk xaalisu réew mi rek lañ nekk koo dégg mu wax ko rek moom dafa lekkul danga lekkul man dama waaru sax léeg-léeg nga gis koo xam ne day naxari deret lu ne mu wax ko pouvoir bi buñ ko jëlee ñaari weer ñetti weer ba lex jugaat boo déggaatee discours am da ngay bàyyi àdduna nga yëg ne la mu doon wax tegul woon ci principe kaay leen jël ma la woon Cheikh Omar nag nee na daayiratu fadliya ko dégg mu weddi ka rek dañ ko fa recruté wul mais ñañ fa recruter moo tax ñooñu ku leen bëgg a waar sa xol day metti ndax dangay wax lii la yitteel ba àggal ñu ñu ree ba daanu ci suuf nga ne kii la kii ñu koy waar muy ree fekk déedéet dafa nekk beneen dimension boo leen bokkul rek foofu nag mu ne nag léegi leer na xanaa daayir ñaari ay dawaayir moom am dawaayir officiel yi mooy cadre officiel yi loolu xam nañ ko ci justice instance yi dafa bari instance yi dafa bari euh, benn cour bu nekk am na lu muy atte ñii loi des marchés lay atte kii loi des nangam kii loi des entreprises loi euh, euh, code du travail code nangam code du nang waaye président de la république nag defe naa kenn du ko atte ci cour yi hmm? haute cour lañ koy jëlee haute cour internationale wala à La Haye ah CPI ñu jël yóbbu leen fi par rapport ak ses président hmm? Cheikh Omar nag nee na cours yi ni muy bari bari daf ci am benn cours boo xam ne hors service la yàlla kese kese la mais divine moo fay dox mais divine bi lam fay doxal mooy lii la bëgg li mooy am compéti ban compétition la yonent yi def ba doon yonent ban benn coobare yàlla rek moo leen fa yóbbu moo tax ñoom ñëpp ñu ngi ci daayiratul fadliya ak tab yi ban compétition ci xayb lañ def ba mën a am loolu la main divine rek moo leen jël dugal leen foofu Cheikh Omar nag nee na loolu laa bëgg nga xam ko xam naa lii xam-xamu octobre bi la ndax lii kenn gisagu ko ci benn téere moom Cheikh Omar mu génn ko mu ne nag wa fiiha léegi leer na daayira bi xam nga ko wa fiiha ci daayira boobu nag pour noppal la awqa allahu la yàlla dugale hada cheikhul ahmadiya cheikh na tiyaani mii maanaam lu diggaat fii rek ci ay may ak lu ma jotul wax bu mu la yëm te xam ne moom foofu la juddoo moom ci xadara boobu al muhammadi ibrahimi wa jaalaha llahu daairata ahli tariqati yemu ci mais nit ku ne kay fa dëkk boo fa amee ay doom doom yi fu ñuy dëkk te kër ga moom Cheikh foofu la rek ba produire yeneen ruux te mooy ruuxu ay taalibeem mais ñooñu itam fan la ñuy mën a dëkk ci daayira boobu rek lañ dëkk wa aw awqaahum fiha fadlan minhu yàlla dugal leen fi dëkkal leen fa loger leen fa waaw yàlla dina leen fa loger ci ësël di leen génne ëllëg foofu ah ñoom fa lañ juddoo yaroo fa màggee fa ba ñëw fii ci àdduna gis nga niñ leen sécuriser parce que doomu président buy génn sax di dem ci yeneen dëkk day am ay soldats yu ko taxaw ba du mën a rax rax ak mbooloo buy jàng ci université yi dañ koy taxaw ba ba muy dellu siwaat ci euh, dëkkam cosaanam pour nekk ci intimité am looloo tax même taalibe cheikh yi dafa am ay invisible yu leen di assister di leen taxaw ba ñu mën a dox seen service fii ci àdduna ñu delluwaat ci kër ga ñu jóge woon te muy daayiratul fadliya lii nag bu mu la metti fadlan ngeneelu yàlla rek minhu wa juudan ak mbaaxam wa karaman ak tabem li shiddati inayatihi ngir bëgg gu mu bëgg ak ni mu sonne bi haza cheikh al azim ci cheikh na ahmad tiyaani mi nga xam ne jamaa lahu booleel na ko maqaamul mahabba wal xullati muy ñaari martaba yi nga xam ne ñaari baayam moom lañ séddoo muy maam Ibrahima xalilullah ak Seydina mu Habibullah Cheikh Tiyaani hérité ñaar yëpp moo tax mu amee tariqatul Muhammad yi al Ibrahim yi. naasi atay ni yi nga xam ne ñu ngi soso ñoom it ñaari melo yooyu bi hadihi daairati ci daaira boobu nga xam ne fattaxada allahu taala nabiyahu mu sallallahu alayhi wa sallam habiban nga ne nga xam ne ci daayira boobu la yàlla tànne yonent yi muy xaritam wa sayidna ibrahima alayhi salatu wasalaam xalilan mu tànn fa ibrahima xalil li wirasatihi ngir donn gu mu donn moom cheikhu tiyaani iyahuma ñoom ñaar ñooñu min hadihi euh, an nisbatayni ci ñaari wàll yi kon cheikh bu donnee lool lépp luy martaba xullatu est ce que du ko jël ba mat ba bu taxawee da nga naan maam ibrahima ngi waaye luy martaba mahabbatu jël na ko ba bu taxawee nga ne mu yonent yàlla Muhammad a ngi nii waaw loolu est-ce que du du du trans du ko transféré ci ay doomam ki tam ñaari martyr yooyu nag eh, yàlla dina la toroxal yàlla dafay wax yonent bi ne yawma laa yaxzi llaahu nabi walladina am duma la toroxal muk kon ñàkk a torox Cheikh Tiyaani jël na ko ci moom waaye itam martaba xullatu doo ko amee safara di la lakk qul naa yaa naaru bardan wa salaaman ala waa Ibrahima moom nga xamee du lakk waaye ku ko donn ak say di ngeen lakk yow koy yéene leen kër rek eh, yàlla fa Cheikh Omar mu ne wa qaala taala inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan walam yakun min almushrikin shakiran li an'umihi jabaahu wa hadahu ila siraatin mustaqim ni nga xam ne yàlla noonu la tànne woon yonent yàlla ibrahima filtré ko ba presque moom tudde ko umma nga xam ne dafa sell sell bu mës a bokkaale yàlla mu doonoon ku reconnaissant mu tànn ko jubal ko ci yoonam mu jub bi loolu la donnaloo Cheikh na Tiyaani ak njabootam moo tax mu doon tariqatul xamdi wa shukri xamdi bi mu dellu ci yonent bi shukri bi mu dellu ci Ibrahima shakiran li an umihi wa qaala sallallahu alayhi wa sallam liman qaala a taf'alu hada wa qad gafara allahu laka ma taqaddam min dambika ma taaxar qaala afala akuna abdan shakura yonent bi yàlla moo nekk innaa fatax naa la ko fatxan ba mu jeex yàlla baal na la say bàkkaar yëpp mais Aïcha nee na teewul guddi gu jot daraan naa fi la ba ay tànkam sadd ma ne ko waaw coono bi ngay teg sa bopp te yàlla baal na la say bàkkaar yu njëkk yi yu mujj mu nekk yàlla noonu la toll waaye man pour ma pour ma pour ma mérité que est ce que afala akuna abdan shakuran du ma am reconnaissance loolu la Cheikh na Tiyaani donn moom it moo tax mu doon abdan shakuran aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam wa kaanat ashalu turuq ala al itlaq wa kaana ahluha mahbubuuna maqbuluuna ala ayi xaalatin kaanu maa lam yalbisu xullata al aman min makrillah wa min bahriha saxara allahu taala jaddahu sayidahu wa mawlaahu sayidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xata ahabahu mahabatan laa tucrafu wala tukayafu min baxriha jacala allahu qutba almaktum walbarzax almaktum alxaatim almuhammadi almaalum markaz ayaatihi markazan yatafajjaru minhu li jamii al axwaas al fuyuuda wal uluuma e, sababayni dalika e, sayubayyinu dalika fi lmaxshar tasdiqan binnabi almaasum id naadaa munaadi fi lxashr nee na nag géej googu nga xam ne mooy daayiratul fadliya cercle boobu moom la yàlla tànnee yonent bi def ko foofu abdan shakuran e, baaxal ko moom yonent bi ba lépp loo xam ne def na ko ci xeetu jaamu yàlla yàlla nangu ko ak nu mu mën a mel nee na itam ci géej googu moom la yàlla tàggatal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba gënale ko ci xeet wi yëpp ak mi mbindeef yi yëpp def ko muy rahmatan lil alamin ba nga xam ne képp ku ko bëgg mën ngaa bañ a texee di mën ngaa bañ a texee di nee na même nag géej googu l'histoire se géej gi ci la yàlla dugal maam Ibrahim muy xalilu la géej gi fa la yàlla amale yonent yàlla Muhammad bi Habibullah mais ne nee na itam de même ci même géej gi moom la yàlla amalee xutbul maktum bii nga xam ak barzaxul maktum nga xam ne mu moo fa doon central bi nga xam ne nii moom mooy defar mboolem xawsu yi moo leen di jox ay faydu ak ay xeetu xam-xam te loolu mën nga ko dégg sax tey nii mu yomb ci say nopp waaye yowmal qiyaamati buñ dekkee dana leer nañ parce que benn wootekat dana taxaw ñu jël bari leer turbinu leer bu weex tal teg ko jël Cheikh na Ahmada Tiyaani teg ci muy nes nesi ñu naan xanaa yonent ci bee toog ñu ne déedéet xalifaam la bu ko defee kooku di woote ne yéen mbooloo mi kii moo leen doon tëbb ci àdduna ngeen yëg ko ak ngeen ñàkk ko yëg loolu géej googu moo ko may euh, beneen bi ci des même géej gi wala wala daayira ba moo jur yonent bi jël secret yi gën a kawe ci trésoru yàlla yi ci ismullahi al azam ak tajalliyat yooyu jël ko jox ko gratuitement cheikh na ahmed tiyaani muy daairatul ihaata daairatul ihaata bi nga xam ne mag ñi dañuy wax ne benn per boo ko ci jàngee wa jële sawar loolu jaamu yàlla quatre mille ans benn per bi moo ëppale loolu logique na per boo xam ne du mat minute ah allahuma salli ala sayyidina muhammad fatih ma sabaq nasr xaq bi xaq wala jiyaa sa kamsëg wala xaq drim daa adim nga jàng benn yoon yéene ci daayiratu ixaata ma ne na waxuma benn nit mais dund ñëpp loolu koy wax dëgg yàlla coono jaarul mais bu bu ki ka jàng mu ngi jàngee ci maqaamu daairatul fadliya kay yàlla mooy def lu ko neex moo tax mu ne mooy kanzul mutalsam bi nga xam ne huwa xasun bihi muy daaira bi muy ismu bi nga xam ne yàlla moom yonent bi rek la ko jagleel yonent bi jagleel ko Cheikh na Tiyaani mu ne ci géej googu itam muy daayiratul fadliya ba tey yonent yàlla Muhammad gannaaw ismullahi al azam boobu di daayiratul ihaata yonent bi joxaat na Cheikh na Tiyaani lu ñuy tudde eh, al faridatul xarida wala boog yaakutatul farida nga xam ne benn peram rek njot la ci safara ñu dina jaamu yàlla ba dee dem safara ki jàng benn saat fàtte dem àjjana fa la ko jële mu ne ci daayiratul fadli la jóge ci bi jox ko ko gratuitement amul logique moo tax ñu bëgg jël saat fate indi ne dañuy indi logique dañoo amul fa mu juddoo parce que fa mu juddoo logique xew fa am na dëkk yoo xam ne booy dawal sa oto sax ba agsi fa guddi dañ naan lan fay làmp yi fayal làmp fii kenn du fi duggee ak làmp ndax dëkk yi na mu mistige daay daayiratul fadliya lamp logique boo am bu agsi foofu day fay foofu daal kenn naa doxal mooy yàlla yàlla ne la mu fay doxal mooy lu ma neexee am nee na même ci daayira boobu la yàlla tibbee itam mboolem werd yi amee ci tariqa bi li dale ci ismullahi al azam al kabir wama duunahu ak la koy yées mooy xisbu sayfi xisbul mughni xisbul bahri jawharatul kamal yaa latifu lépp loo xam ne Cheikh Tijaan Chérif daal jox na ko ay taalibeem jàppal ne yow bi nga ci werd ak bi ñeneen ñi werd du benn de ndax yow yaa ngi werd ci cadre daairatul fadliyati te ñële lim rek la ñuy werd boo defee benn ñu fay la fukk ñoom noonu la ñuy def boo defee benn ñu fay la fukk bu ko nga topp rek di di conté rek gis fukk fukk yi gën a bari kële nag benn lay def mu wecci jëfu àdduna bi yëpp xam nga loolu jaaduwul nag waaye yàlla lu ko neex def moo tax mu ne wa kada jamiu man qaddamahu cheikhu radiyallahu an fi itaiha wa man qaddamahu man qaddamu hakada al amru ila an yarisa allahu al arda wa man alayha mu ne daayiratul fadliya bi day toppa nag gannaaw bi ko yonent bi joxee Cheikh na Tiyaani courant bi moom Cheikh itam képp ku mu lijaasal def la mu qaddam yow courant bi dalay topp ba yow it koo jox ndigal day dugg directement ci daayiratul fadliya muy délégation de pouvoir lañ leen jox yonent bi moom moom daayiratul fadliya mu jël délégation de pouvoir bi jox ko Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane itam képp ku mu xaddamal wala mu xalifaal la yaa ame délégation de pouvoir bi yow may ñaari rakk sax bu ko julee ci cadre dairatul fadliya lañ koy dugal kenn du xam nu mu toll kooku itam képp ku mu lijaasal kooku itam loolu lay amat Cheikh Omar ne hakada noonu lay def ndigal li di continuer di tuuru di dem ku ñu jox nga am ndigal la ila an yarisa allahu arda wa man alayha ba ba yàllay donn nag suuf ñu soog a dem àjjana bégi yàlla yàlla bu ñu ump ak jàmm euh, mu ne wa kaana yaqulu radiallahu anhu hada ataauna wa kaana yaqulu radiallahu anhu euh, hada ataauna famnun aw amsik bi gayri xisaab min huna yuclamu anna man lahu adal euh, adna ilmin wa macrifatin anna ahlu tariqati almuhammadi alxatmi alxatmi almuhammadi afdal min gayrihim li wajhayni axaduhuma annahu kaana imaamu ahliha radiallahu anhu huwa barzaxul baraasixu cheikhul mashaayix al maxuudu minhu jamiicu turuqi mutaqaddima kaana ahlu tariqati alxaasatu bihi afdalu min gayrihim wiraasatan ahmadiyyan muhammadiyya wa saaniha annahu lamma kaana daairatu alixaatatu alladi wa huwa sirruhu huwa sirruhu saari fi jamiici asmaa'i llahi alzaahirati walbaatinati wal ismu alaczamu alladi laa yulaqinuhu illa alqutbu walkanzu almutalsamu alladi ma anzala allahu fi alqur'an wala fi jamiici alkutubi alilahiyya misluhu والخريدة الفريدة ليس فوقها إلا الاسم الأعظم الكبير وكل ما سواه فهو دونها كنوز مطلسمات فيها من العلوم والأسرار والدخارف والدخائر ما ليس في غيرها من جميع الأذكار ونال هذا الخاتم من أسرارها وعلومها وخباياها ما لم ينله غيره من أكابر الأغواث وكذا كان مأذونا من جده صلى الله عليه وسلم في إعطاء جميع ما ذكر wa huwa radiyallahu anhu tafaddala bi tilka al asraari wal adkaari wa asraariha wa culuumiha wa xabaayaaha wa zaahiriha wa baatiniha wa mafshuwaha wa maktuumaha ala ahli tariqatihi likulli likullin minhu maa yunaasabu xaalahu wa maqaamahu wa qaabiliyatuhu wa isticdaaduhu kaana ahlu tariqati afdalu min gayrihim bilaa raybin wa sayaati fi fadli fi fasli fadaa'ili almutaalliqin Cheikh Omar nee na li tax ñii neexuñoo dab ñu nekk ci daayiratul fadliya moo di yonent bi sallallahu alayhi moo wax cheikh na tiyaan yi nekk lañ waxoon suleyman nekk hada ataauna famnun awam sik bi xayri xisaab lii daal samay may la yow suleyman jëlal jariñoo wala nga may ku la neex wala nga bañ maanaam kenn du la ci réglé suleyman xam nga ne nguur gi mu am ak teraanga ji ba pare boole dàmbale ko ak prophétie loolu logique daayiratul fadliya moo ko def mu ne même loolu nag délégation de pouvoir boobu lañ joxe jox Cheikh na Tiyaani moo tax taalibe Cheikh yi nga leen gis ñu dunde ci aisance boo xam ne da xam ne nguur man la weesu lii mais di dunde ci wilaya goo xam ne da xam ne cër mënta weesu lii te dara juru ko ludul borom cër yépp muy Cheikh na Ahmed Tiyaani moom lañ jox délégation de pouvoir yi ci daayiratul fadliyati kon ci gàttal daayiratul fadliyati yonent yi moo mais kala la ko dénk yow tiyaani wala dénku ko ko daka ka may lu fa waaye di am nag cheikh ci cheikh lay jóge wa min huna cheikh Omar nag nee na ci lii bo xasee xam nii comprendre ko képp koo xam ne am na xam-xam lu mu gàtt gàtt te yàlla raxas xolam di xam ne kon tariqa cheikh na Ahmed Tiyaani moo gën maam lu dul moom ndax yeneen yi tarixa la te lii daayira fadila la moom am logique caisse noire la goo xam ne daal Euh, doo xam lan la njaboot gi nekk ci tariqa bi itam ñooy gën ñeneen nee na ci ñaari phase nag min wajhee ni ci ñaari phase nga déglu ko benn bu njëkk bi mooy li tax taalibe cheikh yi gën ñu dul ñoom moo di ñoom seen sëriñ mi nga xam ne mooy seen patron nga xam ne mu ngi tudda barsaxul barazix mooy cheikhul masaïx yi nga xam ne sëriñ sépp li tax ñu doon ak ay sëriñ ñu ngi ko jëlee ci Cheikh na Ahmed Tiyaani kooku mooy sëriñu tariqa boobu xam nga nag wax dëgg yàlla ku la baayam ëpp alal war ngaa mën a nangu ne doomam moo lay ëpp aisance li muy dunde donte dund dund la waaye du doon benn loolu kon ñoom taalibe yi ñu ngi ko doon ne ci seen baay ndax seen baay mooy patron wu tous les saints kon jaadu na ñoom ñu am ci largesse boo xamee ñeneen ñi duñ ko am ndax wax dëgg yàlla Euh, doom baadoola bi man na mën nañ ko jëndal balu trois cent moom lay fawee ci biti ak ay poupée yoo xam ne ni du jar euh, ay fanweer lay jar ak yu mel noonu mais gis nga doom milliardaire bi oto bi muy fowee euh, bàyyu kële amu ko te moom da da da koy da koy fowee noonu rek moom pol pol lañ ko ki utal ko chauffeur bu dawalee ba yàgg te moom ñeenti at rek la am mais oto lañ koy jox pour mu mu koy fowee nee na kon ñi nga xam ne seen wuy jur moo ëppale lépp luy may wala moo ko détenir ñoom ñu war a ëppale ñeneen ñu dul ñoom est-ce logique loolu mooy bu njëkk bi mais nee na beneen bu ñaareel bi sax moo gën a yéeme mooy daayiratul ihaata maanaam bële mérite la bële faveur la seen bàyyi moo am doole mais bii presque mérite la ci ñoom mooy bi nga xamee ne lépp luy secret yàlla mu ko sotti ci seen xadara wuy jur mooy Cheikh na Ahmed Tiyaani li dale ci maanaam daairatul ixaata bi nga xam ne bu ko waxee rek mooy ismullahi al azamul kabir ak secret yi mu amee ndax ismullahi al azam benn per bi rek mën na tukkal àdduna Cheikhu Tiyaani moo ko donn léegi nga xam ne kenn amul ndigal zikr ka lu dul xutbu zaman bi moo la ci jox ndigal euh, nga xam ne moo dàmbale mboolem xeetu xam-xam yi nekk ci alquran ak mboolem kutub yi fi jiitu maanaam sirru boobu la bëgg a wax ne kan moo ko donn Cheikh Tidiane kon mooy bàyyu ñii mais ndax da ko donn rek téye ko problème bi foofu la ne ñaareel bi mooy beneen secret bu xaw dab dabal boobu muy yaqutatul farida ci muy salaatul fatiha moom itam li ci nekk ci ay instance bu laajte ismullahi al azamil mutalsa muy dairatul ihaata muy jëmmi yàlla rek is mooy turu yàlla nga xam ne ku ko détenir mel na ni décodé nga jëmmi yàlla yëpp beneen bi mooy yaqutatul faridati mooy salaatul fatih jàppal ne ku ko détenir décoder nga lépp luy jëmmi yonent bi waaw ñaari magasin yooyu ku ko ubbi ñu jox la caabi adduna tukkiwul hmm? léegi Cheikh Omar nag ne seen sëriñ ñoom moo yore ismullahi al azam muy dairatul ihaata mais moo yor itam salaatul fatiha muy xaqiqatul muhammadiya booleek nag yiñ ko ci boole laat ci ay xeetu xam-xam yamu détenir ma trésor ya ak secret ya ak ndëxañteef ya ak mboolem zikri yi mu war a àndal xëy na tuddul sax jawharatul kamal waaye ya ca aju nee yooyu yëpp yàlla mu ko jox cheikh na ahmed tiyaani kon moom moo détenir ñaari caabi muy caari caabi daayiratul ihaata ak caabi yàqutatul farida ji mais nee na li ci gën a yéeme pour wan la ne taalibi yi kenn du mën a doon ñoom mooy sëriñ bi da leen ko jox ah xam nga président de la république bu amee code nucléaire ñàkk lu muy jox def jox ko caatam xale ba di ko fooye ku ku wax mu ne ko boo boo deful attention damay taal kii bi de xam nga kooku xale ba mat naa wala ñu jéem a changé code bi Cheikh Omar nag nee na non seulement ñii seen bàyyi moo détenir yu code yooyu mais leen ko jox problème foofu la ne waaw ku la jox nag di nga yem ak kuñ ko joxul moo tax mu ne moom da leen jox secret yi te moom yonent bi ko joxoon sallallahu alayhi wa sallam mu jox leen digal ñu jox ko wata wa bi tilkal asrar mu mayaale leen secret yi mu àndal jox leen zikr yi wa asrariha ak maanaam secret yi ci na wa ulumiha ak xam-xam ya wa xabaayaha ak yiñ ci dëb nëbboon yëpp wa zahiriha ak ak biir ba wa maf mafsuwiha ak yi ci war a siiw wa ak yiñ ci waroon a nëbb yooyu yëpp Cheikhu Tiyaani baax na ba jox na ka ahla tariqatihi ay taalibim ci ñooñ tariqam li kullin minhum ku mu doon nag ci ñooñu maa yu naasibu xaalahu lam tollool lam tollool la ci am wa maqaamuhu ak maqaamum wa qaabiliyatuhu ak lam ca attan wa stidaatuhu wa stidaadaatuhu ak lam ca attan kaana ahlu tariqati yi kon deuxième phase bi bu dul sax faveur bële mooy seen baay moo fi raw waaye deuxième phase bi seen baay jox na leen loo xam ne war nañoo mën a raw ñu dul ñoom te loolu c'est c'est visible defe naa wax dëgg yàlla bàyyi Cheikh Xaaji Ibrahima Niass ku ne la du sëriñu tariqa bi am na yoo xam ne jàpp nañ ne mooy sëriñu tariqa bi parce que niir na ci ay xeetu secret yoo xam ne mën na ci téye àdduna bi ñu ne la non loolu day na nga ne sëñ Babacar Si nag ñu ne non ko koy moom moom kenn du ko tudd sax di tudd keneen ñu ne waaw mais ñu ne waaw Cheikh Omar mii xam lii nag ba di ko wax moom moom lan la ci téye moom lépp lañ ko jox foofu moom lépp lañ ko jox li waay li gaa yi moom daf ko ne fàng ne man yàlla xamal na ma li gaa yi nëbb te mooy ismu daayatu ixaata loolu xaa mu gën a dee mais Cheikh Omar nee kon ñaar yi moo tax kuy taalibe Cheikh doo moroomu keneen ñaari phase yi muy Cheikh Tiyaan yi mii seen baay mais ñaareel bi yemul ci Cheikh Tiyaan dafa doon ñaari clé yu mu donale njaboot gi te wax dëgg yàlla bu bu njëkk ba rek mënoon nañ ci séddu ba dee sax te duñu jeexal ndax sama bàyyee milliardaire bi man nga cee dund ba dee xiif du la rey waaye boo ci jugeetee nag entreprise yëpp ñu joxaat la ko bind ci sa tur ngay liggéey ci sa liggéeyu bopp boole li nga doon ne sa baay kooku nag li nga li ngay am xamul xaw ma nu muy toll. mu ne loolu nag damay anticiper rek mais dinaa la wax incha allah ci trent huitième chapitre bi ngëneelu tarixa bi moom boobu ba tey mu ngi wax ne ngëneelu taalibe yi dina ko wax ci kanam te boobu ba mu ngi wax xam ne yàlla maye na yàlla yàlla fayal ju Mawla mu ne euh, chapitre 38 dinaa ko ci leeral ci cadre bi ba nga xam ne euh, taalibe cheikh yi li leen may kartan ak doole ñu am cir yi am du kenn lu dul cheikh na tiyaan yi mi ñu ci moom d'ailleurs sax chapitre 38 dinaa la wax lan mooy sababu yu tudde tariqa tijaaniya tur yi juróomi tur mooy tudde nañ ko ahmadiya mu dellu ci ahmad ndax borom ahmad la tudd nañ ko muhammadiya mu dellu ci muhammad tudde nañ ko ibrahimiya mu dellu ci ibrahim tudde nañ ko xanafiya mu dellu ci tawxidul mahd tudde nañ ko tijaaniya nga xam ne moom lañ xame borom nee na tur yooyu yëpp nag dafa am benn bu nekk instance bu tax wala dimension bu tax ñu tuddee ko loolu bi hadal maa yunabbihu bi hadal lu lay firil daayiratul fadliya bii nga xam ne ñoom fa lañ résider moo leen may loolu ala xayrihim ci ñu dul ñoom euh, ala tariqi tasrix dinaa la ko waxal ba mu leer wa baaduhu ala tariqi ishaara yi ci des nag duma ko mën a leeral dama koy junj rek nga dégge ko ci waaye daal ci ngay xamee ne ndekete seen tiyaan yi du da rek dafa xëy ne ay taalibeem ñoo gën ñoom diw ak diw déedéet dañ ko naan moo dañoo naan leer autant li ko keneen naan waaye du caaginu benn jëmmi faveur kese léegi nag fal nadkur huna baadu alfaadi hadihi tariqa lil ishaara innaha balagat euh, illa ana balagat alquswa fi lfadli wa inna martabata ahliha la yabluguha gayruhum bi xaalin ma wa inna ahmadiyata ala tahqiq fa naqulu allahuma mu ne nag euh, dinaa la tuddal rek ay quelques résumé ndeysaan quelques résumé yu lay wan ne tariqa tijaaniya bi ñi ci nekk kenn du ñoom tabaarakallahu ndax ngëneel yi ñu naan maa ngi lay wax ne allahuma salli ala sayidina muhammadin ila qawlihi xata laxzati sukuni fi fi gayri hadihi al adkaar allazima fa innaha la tumnacu mimman qabila shurutaha ala ayati xaalin kaana kama taqaddamu fi hadihi addairatu al ixaata euh, euh, addairatu alfadliya li mawlana azza wa jalla ma yawaddu alladina kafaru min ahlika wala mushrikin an yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum wallahu yaxtasu bi rahmati man yasha wallahu dul fadli azim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dalik qul inna alfadla bi yadillahi yuti man yasha wallahu wasiun alim yaxtasu bi rahmati man yasha wallahu dul fadli azim wa qala alladina yastabshiru bi nicmatillah wa fadlin minhu qala wa kana fadlullahi alayka aziman wa qala am yaxsuduna annaasa ala ma atahum allahu min fadli qala wasalu allaha min fadli qala ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا fa amma alladina amanu wactasamu billahi fa sayudxiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa qaala xikayatan an sayidina yusuf fi dalika min fadli min fadli illahi alayna wa ala annas walakin akthara annas la yashkurun qaala walawla fadlullah alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walawla fadlullah alaykum wa rahmatuhu fi dunya wal axirati lamassakum fima afadtum fihi azabun azim wa qaala inna fadlahu kana alayka kabira fa qaala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmacuun fa qaala inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi qaala wa qaalu alhamdulillahi alladi azhaba anna alxazana inna rabbana la gafurun shakuur alladi axallana daara almuqaamati min fadlihi wa qaala li allaa yaclamu ahlu alkitaabi allaa yaqdiruuna ala cheyin min fadlillahi wa anna alfadla biyadi llahi yuutii man yashaa wallahu dul fadlil azim wa qala wa axarin minhum lamma yalxaqu bihim wa huwa al azizul xakim dalik fadlullah yuti man yasha wallahu dul fadlil azim Mawlana Xaaji Omar mu ngi tëj fasl bi mu mel ni da nga ko laaj yow daayiratu fadliya bii nga yow fan la tegu mu ne pourtant alquran la de Cheikh Omar ci temps bu gàtt bi jëlee na baqara ba minal jinnati wan naasi fu fi yàlla tuddee fadlullahi rek aaya bu mu ko tuddee junj nag yow kay yaa daan jàng ay te déggoo ko waaye daayiratu fadl yàlla mas masu koo wax ci alxuraan rek na téere ne yàlla moo wax ci suur euh, euh, yàlla moo wax ci alquran ci daayiratul xëy na yow yaa ko déggul li mu njëkk a wax dafa ne maa yawaddu alladina kafaru yéefar yi bëgguñu ak euh, min ahlil kitaab ci deux religions révélées avant l'islam wal mushrikina ak ate ñoom bëgguñu an yunazzala aleykum min xayrin min rabbikum yàlla wàcc ci yéen teranga xam nga say noon yénewuñu la teranga oto bu bees boo ko amee say noon yëpp dañuy fippu naan dañ ko ko abal yénewuñu la ko nag waaye yàlla nee na wallahu yàlla bi xayr wallahu yaxtasu yàlla mooy jagleel bi rahmati ci terangaam man yasha ku ko sob ñu ne ko lu tax mu ne parce que wallahu dul fadl azim mooy borom teranga ji mooy borom ngëneel li loolu itam fii nekk fii yéen taalibe cheikh yi nit ñi yéenew ñu leen li amaa ama ci ay may waaye tontu li mooy yàlla nee na mooy jox ku ko sopp lu ko sopp mu dugal leen ci daayiratul fadliya ci laajoo leen ko moo tax kon bu waykat bi ne yàlla buur bi moo ko ko jox ci tabem nde laaju ko ko fal ko suuf si ak asamaan jël ma mayam tasaare ko yàlla moo waxaat ba tey ne ma ne innal fadla laa wax noppalu leen gënal bi yadillahi ci loxo yàlla le ne yuuti moo koy jox man yasha ndax wallahu waasiun ku yaatu la alimun ku xam fi mu ko war a def la waaw ku yaatu ndax waru la maye lu yaatu xam nga wax digg ki nga xam ne amul argent de poche maanaam ki nga xam ne capital am yëpp cinq cent mille la kooku wax digg yàlla bu la vingt cinq mille war naa rëy ci yow hmm? waaye multimilliardaire bi vraiment bu leen xaaral rek argent de poche laa lay jox jëlal deux milliards cinq cent yi ba bu may am temps bu ko defee dinaa la triyel xaalis xam nga loolu itam waru la yàlla mi nga xam ne mayam amul fu mu dale amul fu mu yem defar ab daayira tudde ko kes noir euh, di ci jox ku ko soob nga ne lii dafa warula am wala lii dafa ëpp yàlla neen déedéet wallahu yàlla waasoon dafa yaatu moo tax dafa yaatule te alimun xam na fi mu war a joxe yow kay ñaanal mu jox la rek yaxtasu mooy jox bi rahmati ci yërmande man yacha mu mel ni nag dañ ko laaj le pourquoi mu soog a wax ne ndax wallahu zul fadlil azim moom mooy borom gënal lu rëy li téere yi dañu wax ne ida azama al azimu amran fa inna zalika yadullu ala ku rëy bu rëyalee ku rëy kaar bu rëyalee mbir war ngaa xam ne rëyaayu loolu kenn xamumu toll xam nga xam nga xam nga xam nga tabarakallahu lii di fooy siqa les raa raa yi na sax noono ra janax janax xam nga moom jàpp na ne muus moo gën a rëy ci àdduna bi hmm? parce que moo ko sonal fu mu toog rek muus lay xool ndax fu fu muus yendu moom dafa mën a yendute mais xoolal moom muus ni ko ni ko ñay ëppee waaye moom tuuti gu mu tuuti moom moom moom janax moo tax mu jàpp ne muus moo gën a rëy muus itam gis nga ni ko xar gënee rëy xar gis nga ni ko euh, euh, euh, gëléem gënee rëy mais gëléem itam gis nga ni ko ñay gënee rëy waaw léegi nag li gën a rëy lum ne rëy na lool nu mu war a toll yàlla moo tudd azim léegi nag moom bu ne ngëneel li man daal xool naa ba xool mais caisse noire ga rëy na kooku kenn xamul zul fadlil azim la wax billahi daairatul fadli yi rëy na moo tax nit man ca dunda des milliards d'années di fa tedd des milliards d'années te du xam biti bi lu fa ne ndax la fa ne doy na sëg yàlla nee na ñoom jullit yastabshiruuna ci ali imran ñu ngi béggee bi ni'matin min allahi wa fadl ci xéewalu yàlla gi leen yàlla may ci barsax ci ay teranga axa kay war nañ koo yëm ndax wallahu min bi fadlin min allahi wa fadlin ak ngëneel yàlla waxaat na ba tey ne wa kaana fadlullahi alayka azima lii nag moom fala wax yem yow yonent bi yàlla Muhammad yow laay waxal mag ñi dañuy wax ne nit bu jëlee baaraamu sànnikaay bi lem ñeenti baaraam yi janoo ak nit naan kaan yow ba pare di ko joxoñ ba euh, euh, baaraam bi nee na bu fa kooku jëlatee dënnam maanaam loxoom taf ci dënnam naan kaan ndax man nga wax ku bari wax la koo janoon jël baaraam sànni ko naan yow mii laa wax yow mii xam nga jaratul nga man ndax wax ja mooyu la yàlla moo def loolu yonent bi ne wakkaana nekk na dëgg-dëgg fadlullahi ngëneelu yàlla alayka ci sa kaw laa wax yow yonent bi dëgg-dëgg man mi yàlla man yàlla men mi xam lu rëy xam naa ne aziman rëy na moo tax téere yi ne yonent bi jaratul woon a gàmmul ci waxin ndax yow boo foogee ne da nga koy yokk wala nga foog ne yaa ngi juli ci moom pour yokk ko da ngay nax sa bopp kon daanaka en réalité gàmm gi xam nga lumu doon yalwaan yonent am mbay te nga bëgg ci dara nga ne dañ ko utal bés rek ndokkeelee ka nga fekkee ndokkeeloo yow yaa bëgg dara xam nga wax dëgg yàlla ñoo xam ne gëj nañu gëj nañu gëj nañoo añ ñeenti fan ñu toog ba kenn ku nekk yëg ne li mu ni mu faible lu ci dollee ko ñu dee ñu ne tee ñoo seeti ji milliardaire sàngam ziyaare ji ko ñu def seen délégation jàdd ci boutique bi am yuñ fa leb leba leba leb def ko cadeau ñëw fëgg bunte bi sonnerie bi tabaarakallahu ñu dalal leen ñu ñëw toog nekk nam ma rek ak sopp dañ ñëwoon di la ziar si kado bi sax xeeb nañ ko waaye fekk ñu ngi bëgg a dee ñoom ndax xiif ñooñu dañuy dañuy teral si waa ji wala dañuy yalwaan si Cheikh Tiyaan nee na loo defal yonent bi moo xam salaatu ala nabi la moo xam wusifaal ko la moo xam gàmmul ko yàgg ñoo ñoo yem rek da ngay yalwaal si rek waaye yow mayewoo dara ndax kado boobu buur bi soloo ko dëgg <laughs> hakaza ndax yàlla bu ko tiimee nekk wa kaana fadlu alayka aziman dig yàlla luñ ci doole ci amatul beneen bi ci des yàlla nee na am yaxsuduuna annaas ala ma atahum llahu min fadlihi waaw yéen nit ñi da ngeen nar a bon xol bay iñaane nit ñi li ma leen jox ci sama ngëneel daayiratul fadli yi ñamu baaw ci seen kaw lu tax ngeen leen i iñaane wasalullah min fadli laaj leen yàlla rek moom it mu jox leen comme ñi mu jox ñële mais itam laaj laaj taxula am ndax fadli bi moom ala mashiatihi moom lay sopp rek moo tax mu ne wasalullah min fadli yi yàlla ne wa man yuti allah wa rasul ku topp yàlla ak yonentam fa ulaayka ñooñu ma alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin waaw ñi nga xam ne ñoo ko yonent yi ñooy bokk benn logement te du ñuy yonent lan lañ war a amee ngëneel lool yàlla ne zaalik fadlullah ngëneelu yàlla def loolu xam nga wax dëgg yàlla Ibrahima kay xalilullah warul dëkk fii à côté wax dëgg yàlla beneen beneen taalibu cheikh dëkk foofu à côté nag hmm? ko ak kooku poste bi mu am waaye loolu bu mu lay yem euh, boo demee ci ci yenn cité yi léeg-léeg dinañ ne la fii mooy résidence prés l'ancien président de la république ñu ne la à côté commerçant bi fi dëkk à côté benn sénégalais lambda rek fa dëkk wala dëgg mais ñoo bokk ñoo bokk jaww ji ñoo bokk benn quartier noonu lay demee yàlla nag biñ naree ja jaaxle ci loolu nan la ñuy dëkkeeg yonente yeeg siddiqine yeeg aqtaab yi mu ne tëddee bu mu leen yëm daal ak fadulaa rek daal ak fadulaa nag moom mooy wax ju jeex mooy amul logique. wa qaala taala yàlla waxaat na ba tey tey ne fa sawfa yaati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Euh, ba ci waxam ji muy wax ne ci fin aaya bi euh, euh, zalik fadlullah yuti man yasha yéen saxaaba yi yéen laay waxal góorgóorlu leen ngeen ànd ak yonent bi dimbali ko waaye ni ngeen ko defoo defoon def défaillance fële ci Uhud defaat ko ci Hunayn boo leen ko baree loo leen koy répété dinaa leen fi jële wa indi fi yeneeni contingent ñoo xam ne ñooy gën a gëm yonent bi ñoo koy gën a bëgg di ko liggéeyal moo tax téere yi ulamaaw tafsir yi di wax ne waa yaman lañu muy ashari yuuna yi wane nañ après njàmbaar ci xaswatu yamaama goo xam ne ñëpp d'accord nañ ne ñii la yàlla doon junj ne yàlla nee na boo leen dimbaliwul ci bi yàlla dina indi ñeneen ñoo xam dañuy bëgg yàlla yàlla bëgg leen mu mel ni dañ laaj yàlla lool ñoo ñu la pourquoi xanaa dañu ëpp pas-pas mu a déedéet rek daalika fadlullahi rek daalika fadlullah yàlla mooy jox ngëneelam ndax wax dëgg yàlla ñu dëkk ak bi ñoo waroon ëpp pas-pas kon yàlla mooy may lu ko sopp lu ko fa sopp yàlla waxaat na ne ci suuratu nuur bi ñu dalee ci sittuna Aïcha wax ko lu safaanoo yàlla ne o oh, naroon naa leen éliminer yéen ñëpp walaw laa fadlullah aleykum wa rahmatuhu la kuntum min xaasirin walaw laa fadlullah aleykum wa rahmatuhu la tabaatum cheytaana illa bu budul woon ngëneelu yàlla bi ma jàpp ne yéen yéen meilleur contingent ci àdduna bi kuntum xayra ummatin man dugal naa leen ci daayira fadliya ba pare mais bu dul woon loolu tey ma leen di ngeen perte walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu bu dul woon yërmande yàlla ngëneelam la tabaatumu cheytaana illa qalilan di ngeen topp cheytaane ba lu lu néew ci yéen xoolal ñii gis nga dérouté nañ mais teewul lan moo leen rattrapé daayira fadliya kon xam nga bu te teg woon ci luwa kese kese kese ñii normalement dañ leen waroon duba section dafa waroon ñëw mais dafa ne wa te lawlaa fu mu amee mooy budul woon kon am na lu xew euh, wa qaala taala yaa ayuha nnaas qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubinan fa ama alladina amanu wa amilu salihati fa sayudxuluhum fi rahmatin minhu wa fadl yéen nit ñi yéen laay laay waxal unanimité pourtant am na benn argument bu explicite bu leen dikkal muy alquran jóge ci seen borom maa leen jox leer goo xam ne mu ngi jóge ci yàlla mais leer gi ñëpp taxul ñu gëm ko fa amal ladina amanu ñi gëm ñi nangoo gëm waa tasamu ñu moy bihi ci leer googu fa saw fa yudxil fa sa yudxiluhum dinañ leen dugal fi rahmatin minhu ci yërmaneem mais wa fadl wa fadli lu tax mu ñëw mooy dafa am ñu fi nekkandoog yow te gëmuñu ko ni nga gëmee Cheikh na Tijaan yi foog nga ne ñëpp noonu lañ ko gëmee déedéet li nga jàng ba tax nga gëm ko am na ku jàngaloo lu tax mu wetti ko kon fadlullahi rek moo fa jaar wa qaala taala yàlla ba tey waxaat na ne bi muy nettali yonte yàlla yuusuf yonte yàlla yuusuf miñ jaayoon démb dugal ko tabaarakalaa ci benn teen solal ko yóbbu ci marché bi mar euh, jaay ko ci bi samanin baxsin kooku bu demee laa wax bu demee ba war a yilifaat adduna bi lan moo fa jaar fadlullahi wa rahmatuhu moo tax yuusuf moom it am modesti gu toll ni bi mu duggee ci tabarakallahu euh, kaso bi ba war fa génne firi gente gi euh, gaa yi nag yéemu ci moom ne ko noo amee xam-xam bu tol nii mu nekk daali nag daalika nag min fadlillahi alayna wa ala nnas walakin akthar annas la yashkurun supériorité bi ma leen ëppalee ci xam-xam ba man leen a firil gént gi ba mën a firil itam buur bi gént gi ba gént googu jural ma ma génne yemu ci mu jural ko mu dem ba doon buuru misra loolu kaddu samay pexe dalika min fadlillahi gëneelu yàlla la alaynaa ci suñu kaw man ak sama famille famille yaquba wa ala naasi ak nit ñi waaye nag am na ñoo xam ne ñu ngi xuus ci ngëneel li mais yëguñu ko ndax walakin aksara naas la yashkurun ñu bari ci nit ñi duñu sant may wax na nag ki nekk ci géej gi euh, xéwal gi dar ko ba pare mu toog tegaat ci di sant moom lu muy gën a am gën a yokku layin shakartu hakaza kon ndeke li ñu wuteeg nit ñi ñoom ñu ngi ci géej gi waaye santuñu mooy mooy wàññi seeni may wa qaala taala Cheikh Omar nee na yàlla waxaat na wa lii kenn mës na koo gis amul walaw la fadla aleykum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan suratu nuur yéen jullit yi vraiment bette ngeen ma ku toll ni Aïcha di seen jabaru kilif waroon ngeen am ci moom respect waaye di ko jiñ wax joo xam ne nii ñaaw na torop torop torop torop li ma fas yéene woon mooy écraser leen yépp waaye dafa am lu tox sooma digganteeg yéen mooy lan fa zaalika fadlullah wala la fadlullah aleykum bu woon gëneelu yàlla aleykum wa rahmatulah eh, yërmandem ma zaka du seetal setal min kum ci yéen min ahadin kenn abadan ba faw ndax kenn setul ci yéen léeg-léeg situation am ña ca wax ñëpp kenn setul waaye dafa am ñuy jàpp rek yóbbu ah? xam nga bu kaar kaar bu ñëwee génne leen ci tali bi ñu commencé génne di jàpp di di toj ay vitre ak toj taal ay pneu généralement quatre personnes rek la ñuy jàpp ñooñu xam nga ne amuñu chance waaye xam nga du ñooñu rek a génnoon bootul ñooñu defuñu dara sax hakaza kon yàlla nee na dul woon fadlullahi bi ma jàppoon ne yéen a war a gën ci xeet yi ah, tey ngeen tarxiis kon sanction bi li ko téye mooy fadlullah kon lu Cheikh Omar wax ne dairatul fadli xamul loi déedéet fadlulaa rek la xam feeñ na fii tey yàlla waxaat na ne walaw laa fadlulaa aleykum wa rahmatu fi dunia wal axira ba tey ci suratu nur la massakkum fii ma afadtum fihi azabun azim billahi bu dul woon ngëneel loolu ma jàppoon ne yene xayra ummatin ak yërmande ji ci àdduna ak alaxira lii ngeen xuus ci seen gémmeñ jiñ ka Aïcha la massatkum dina leen laal fii ci loolu azabun azim mbugal gu méttee méttee métti ndekete mbugal mbugal gu rëy googu azabun azim lan moo ko jiñ fadlul azim moo dox diggante bi <laughs> te fadlul azim moo ëpp doole fuuf azabul azim yàlla waxaat na ba tey ci alquran ne wa inna fadlahu kaana ka kabira yonte yàlla muhammad lay wax inna fu mu dugg wax naa la ne day takka wax matta la moo xam ne takka nga kaa takka ba mu doon say dara du jaar fen yàlla ne dëgg-dëgg fadlahu ngëneelu yàlla alayka ci sa kaw xaw ma kan waaye kabira rëy na wax na ko fële wa kaana fadla alayka aziman waxaat ko fi kabira nga xam ne lépp luy xeetu grandeur rek yàlla utiliser na moo yooyu pour wan ngëneelu ngëneelam ci kaw yonent bi ni mu rëy kooku foo koy dabee qul waxaat na yàlla ba tey waxaat na ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun maa ngi yëg ngeen di def ay réveillon ne da ngeen koy màggal ah tey day feet la ngeen di fecc ak a tëb di dal ak a lu luñ la wax nga ne da ngay bége yàlla ne li ngeen war a bége yëgu leen ko xam ngeen lan la daayratul fadliya bi xew ngeen ciy xuus te yëgu leen ko qul neel bi fadlillahi ngëneelu yàlla wa rahmati ak yërmandeem fa bi daalika ci loolu fal yafraxu ngeen war a bége loolu ngeen war a jug fecc ndax huwa loolu xayrun moo gën mimmaa yajmauna li ngeen di dajale yëpp waaye yëguñu ko moo ñoo nag yëg nañ ko jóge ca jóge ca de ndax lu awlaa tijaani wa qaala yàlla waxaat na ne inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabur li yufihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi yàlla nee na jullit ñi gëm yàlla te taxawal julli i di joxe azaka li ma leen jox ñu ci dimbaliwaate ci lu nëbboog lu feeñ ñooñu dinañ yaakaar pay gu tonowoo tonowoo tonowu bénéfice bu yaatu njaay la moo xam ni du am perdition mukk kaña la mu ne yàlla moo leen matalal seenu pay bo ku waroon a fayeku vingt ñu fay la deux cent ku waroon a fayeku deux cent ñu fay la deux millions waaye bu yooyu paree bañ ne jot ngeen seen dossier ñu ne waaw ñu soog leen a wax na nag dugaleen ci géej ñu ne gan géej mu ne waye ziidahum ma yokkaleen nag min fadli boobu nag amul amul amul lim benn rek man nañ la ci fay nangami junniy junniy milliards ci benn bi kooku bokkul ak li nga liggéeyoon ñu fay la ko man jaa bil xasana falahu am amsaaliha ku def benn ñu fay la fukk loolu mooy loi bi wala ñu fay la téeméer wala 700 loolooy loi bi mais yëg nga ne benn rakk bu koo xam ne mu ngi doog bokk ci daayiratul fadliya benn rakkam bu ko yàlla nangoo mën naa yóbbu waa Sénégal yëpp àjjana xam nga loolu doon ci logique kon góor gi waxoon ne ku nangul benn salaatul fatiha mu yóbbu xeet wi àjjana daayratul fadli lay waxe yàlla ne wa qaalu alhamdulillahi alladi ashaba anna alxasana inna rabbana la gafurun shakur alladi axallana daarul muqaamati min fadlihi laa yamasuna fiha nasab wala yamas fiha euh, laxub luxub euh, gars yi biñ leen dugalee àjjana ba dëgg yàlla ñu foogoon ne benn kër rek lañ lay transféré bu modeste nga ñu dem àjjana ñu xool kër yi ne xanaa këru kilifa gi kilifa gu mag gi xanaa xanaa fi kër gi yàllaa ko moom ñoom loolu la ñu wax xanaa kër gi ko moom ndax da xool ba teen doo gis fu kër gi yem nga dugg ci biir gis fa luxe boo xam ne doo xam fu mu yem nga naan xanaa kër gi kër yàlla la ñu ne noo yow la ko may te nee boole na ko xeeb da ngay xam nga tiit naan man man ñu ne noo yow nga ne ah kon kër gi du këru yàlla du këru yonent bi akta bi ñu ne noonu yow xam nga da nga bokk ci yu ndaw yi moo ñu jox la bii rek yàlla na ñoom dañuy mujjee tiit banaan naan alhamdulillah di wax ca kaw nag jaadu na nag ñu ngi sant yàlla lazi mi nga xam ne azhaba anna moo fi jële alxasana stress dafa mu ngi fi de ah man ñun suñu dara doxul woon ñu xëy xëy subitement andi ñu fi dëgg dëgg inna rabbana suñu borom la xafurun shakur yàlla ku reconnaissant la te ku mën a jéggale la alladi mooy ki nga xam ne axallanaa moo ñu wàcc daarul muqaamatu kër gu ngand gi gu rëy gi nga xam ne éternellement lañ fiy def yàlla ne déedéet laajteel nag la pourquoi min fadli yi daaratul fadli moo sangu sa kaw ndox mi moo sangu sa kaw wa qaala yàlla waxat na ci beneen aaya ne li allaa yaalamu ahlul kitaabi allaa yaqdiruuna ala cheyin min fadlillah suuratu xadid wa anna al fadla bi yadillah yuti man yashaa wallahu dul fadl azim suuratu xadid bi chrétiens yi naan mais Muhammad nan la fi mën a nekkee yonent moom dèjà du israili waxul ci israil nga coolu fi xewoon ci bàkk ak makka hmm, nan la mën a dëkkee makka te ñun bon ñu bokk ci al shaabullah al muxtar les enfants gâtés de Dieu non loolu nekk yàlla ne noppalu leen explication bi yomb na daalika def gi ma ko def yonente fadlulaay ngëneelu yàlla la te wallahu zul fadl azim yàlla mooy mooy tànn tànn ku ko neex def ko yonent maa la def yonent yow li allah yaalama ngir mën a xam ahlul kitaabi ne allah nu attanuñu manuñu ala cheyin ci dara min fadlillahi dairatul fadli kenn mënu faa dugal sa loxo di ko di ko manipuler foofu daal man yàlla maa fa nekk di sedd ku sop sopp lu wa anna al bi yadi laa yuuti man yasha wallahu zul fadl azim aaya bu mujj bi Cheikh Omar indi moo di suratu jumaa suratu jumaa yàlla dafa wax ay kuréel yusabbihu lillahi ma fi samawati fil ardi malikul quddus al aziz hakim mu ne huwa allazi mooy ki nga xam ne baasa mooy yónni fi lummiyin ci illettré yi mu yónni leen fi nabiyan ñooñ mérité nañ ko xam nga yoroon fekk kay ñoo am agrégation ñu indil leen yonent ñu ne ñi am nañ ñi waaye koo xam ne xamul nu muy bindee turam ñu indil ko ab yonent euh, mu commencé di leen jàngal baasa fil ummiyina rasulun yatlu minhum ayati wa yuallimu wa euh, yuallimu wa yuzakkihim wa yuallimu alkitaba wa xikmata wa in kaanu min qablu la fi dalan bin ko ñii kon mérité wu ñu woon loolu ñu ne ndax foofu rek la yem mu ne pourtant am na ñeneen ñuy ñëw ci seen gannaaw muy ñun ñi wa axarina dafa am ñeneen ñoo xam ne lamma yalxaqu bihim jotuñu dund ak ñële mais ci ñoom lañu bokk ndax bés bu ñuy séddoo salaire ñooy yem kiif kiif ñu ne loolu mënul nekk ñun ñoo xeex Badar tàngaay wu metti wii ak Xunayn ak Uhud gis nga li ñu daj yàlla dal leen nag ndax daalika fadlullah dal leen ndax bu doon mérite rek la yéen itam jàngu leen dara yen wër di sàmmi gëléem ngeen fi nekkoon mais man mi leen indil yonent bi maa mën a jël beneen contingent bu fekkewul yooyu coono ngeen bokk yenn logement ci àjjana daalika loolu fadlullahi la laa wax wallahu wallahu zul fadli wallahu wallahu zul fadli azim yàlla borom gënal la Cheikh Omar nee na nag loolu moo ñu ci dugal ñu itam kenn mënu ci dara mu ne nag xadis yi ndax lislaam looy wax ci xadis nga alquran ak xadis xadis yi nag la tënk mu ne wa rawal Buxaari yi an ibnu Umar qaala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qaa'imun ala al-minbar yaqulu innama baqaa'ukum fi man salafa qablakum min al-umam kama baqaa'u bayna salaati al-asri ila al-ghurubi ash-shamsi u'tiya ahlu at-tawraat at-tawraa fa amilu biha hatta tantasifa an-nahaar summa ajazu fa u'tu qiraatan qiraatan summa u'tu ahla al-injiil al-injiil fa faalu bihi xata euh, salla salaat salaat al asr summa ajazu fa uti qiraatan qiraatan summa utitum al quran fa amiltum bihi xata garibat alchamsu fa utaytum qiraatayni qiraatayni qaala ahlu tawraati wal injil rabbana haulaai aqallu amalan wa aksaru ajra qaala hal zulimtum hal zulimtum min ajrikum shay'an qaalu la qaala fa inna dalika fadli utihi man ashaa wa fi riwaayat fa xadiba fa xadibat alyahudu wannasara wa qaalu rabbana alxadis wal axadis addaala ala hadihi daaira kasirat jiddan wa innama an nabbahna ala hadihi daaira ma annana qad awdacna fi lfusuli almutaqaddima ma yanfuru kullu man lahu adna aqlin wa basiratin min alinkaar li kawli garadina fi hada alkitab shaddu baabu alinkaar ala saadaati axyaar qaala allahu taala fi dalika inna fi dalika la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wallahu taala almuwafiqu bi mannihi lissawaab wa ilayhi almarjiu walmaab moolana xaji omar nag ne doy na ci rek benn benn xadis rek laa lay indil bu lay wan ne ngëneelu yàlla ni aay ñëwee muy dairatul fadliya noonu la xadis tabaarakallahu dëggalee loolu benn rek laa la ciy indil imam buxaari yi dafa solo benn xadis boo xam ne Abdullah ibnu Umar moo ko nettali Abdullah ibnu Umar saxaabi la doomu Umar ibnu Alxataab la radiyallahu anhuma yonent bi ne bi yàlla bindee àdduna dafa mel ni benn benn benn bëccëg la àdduna bi yépp benn bëccëg la bi ñu demee ba julli suba ba jant bi génne yàlla da doon liggéey loo waate nee mu ne mu ne ana ana <coughs> mu wàcc benn téere bu ñuy wax tawrat def ci programme de vie ñamu concerné mu ne leen jëfe leen ko ngeen liggéeyal ma nee na ñoom ñu liggéey huit ci suba ba deux heures après ñu dem ba seen force yëpp jeex mënatuñ dem yàlla euh, teg leen nale tabaarakallahu woolu wàccewaat beneen téere bu ñuy wax injil injil ñoom it ña ca nekk tabaarakallahu liggéey tisbaar ba tàkkusaan nga gis ne ñu njëkk ña ñoo gënoon a euh, tabaarakallaahu guddale heure euh, temps de temps de travail ñoom it mënatuñu yàlla arrêté leen ne leen nag yéen comme liggéeyal liggéeyal ngeen ma kaay leen ma fay leen kenn ku ne ñu jox la xiiraat xiiraat bu doon tey dañuy wax mooy alal ju baree baree baree bari moo tax dinañ ko ñun dinañ ko filee milliards rek milliards waaye pour prix mu gàtt yàlla jox leen kenn ku ne junni muy yi euh, euh, maanaam yahut yëpp ñu fay leen junni kenn ku nekk junni junni junni bañ jeex euh, injil ñi ci jëfe woon ñoom ñu fay leen junni xam nga ñële ñoo gën a metti liggéey te gën ko yàggale te gis nga naaj yi ñu lu xëyoon waaye teewul tolloo nañu ñi léegi nag bi demee nag ba takkusaan ba pare ñu naan léegi jant bi so yàlla wàccaat beneen téere am ñeneen ñu mu embauché muy alquran yonent bi nag nee na bi ma ñëwee ak alquran maa ngi ñëw tard dans la journée presque maa ngi ñëw 17 heures et demi euh, jëm 18 heures lan moo tere jant bi so une heure de temps te yàlla dafa dogal jant bu so fa la liggéey di yem nee na ma ñëw ak sama xeet euh, ñu liggéey ba timis bi timis jotee yàlla ne wàcce ngeen mais kenn ku ne man ci sama xeet mu fay la ñaari junni moom fay la ñaari junni wala bu doon tey ñaari milliards bi ñële nag ñi njëkk a liggéey jëkkee déggee ne booy yi mu xëy ñoo leen ëppale te ñoom ñoo leen ëppaluñ liggéey ñu conserté wu ak euh, ñu ñu ñaareel ñu njëkk ñi ñooy euh, juif yi ñu ñaareel ñooy chrétiens yi ñu ñëw nag di révolté ci yàlla xam ay syndicaliste nekk rabbana ma atatina chaîne yàlla li nga def nii kenn xamul lan la yow ñu dara parce que ñun ñu ngi liggéey mi journée ñun yahud yi ñii liggéey nañ presque quatre heures de temps wala deux heures temps ñii nag léegi lañ ñëw ay dix huit heures daanaka timis lañ wàcc nga fay leen autant li ñu fay loolu fu mu tegu mu ne nag zalika fadli uti man yasha loolu moom jarul jarul jarul commenté est ce que yéen li ma leen digoon dama leen fayul ñu ne ah dëgg yàlla fay nga ñu ñun ñëpp mu ne waaw léegi nag ñii liggéey tuuti ma fay leen lu bari loolu nag ci sama coobare la aju loolu suma ngëneel la man maa koy jox ku soob loolu ci ngay dégg ne moo tax xeetu yonte yàlla Muhammad ñoo gën a néew coonay yaram mais ñooy ëpp ay château ci àjjana yonent bi wax na sax lu gën a triste nee na yowmal qiyaamati cent vingt sappe moo fay am cent vingt sappe sappe bu ne nag la fay ne ci nit doo xam xanaa neel neel milliards yi nit la rek mais nee na négocier naa ki yàlla ba quatre mais sàppe yëpp sama xeet lañ doon àjjana lañ jëm loolu loo ci mën quarante quarante sàppe yi ca des nag moom la cent vingt quatre mille prophètes yëpp di séddoo ak seen njaboot te ku demul àjjana rek yaa xam nga fa nga jëm mooy trois tiers àjjana yi yonent bi nee na trois tiers ñiy dem àjjana deux yëpp man la te maa ngi négocier sax troisième bi nuñ ma ciy bayaatee quota loolu fan la mën a dugg daairatul fadliya rek moo tax mu ne dalika fadlullahi yuuti man yasha wallahu zul fadl azim Cheikh Omar nag ne mënoon naa la indilaat sax yeneen i xadis yuy gën a confirmer ni ngëneelu yàlla yaatu na ci kutubu xadis yi mais lii ma ci jot a wax doy na mooy ngëneelu xeetu ci yàlla Muhammad ku ne xamee du ngëneelu coono ay ngëneel ak daraja la euh, ndax bu dee coono nee nañ diine ji gën a metti mooy judaïsme dafa metti physiquement Euh, <coughs> christianisme toppaat ci nga xam am na ñoo xam ne sax doo takk jabar xam nga loolu métti ah mais taxul ngi nag moom lépp da ngay léeg-léeg léegi ñeenti soxna laa euh, xam nga sama kër gale dafa mujjee sax taxul laa dem fee xam nga kooku mu ngi ji mu ngi ji mu ngi àjjana léeg bu demee ba ñeenti soxna yi sax mu sàppi ko mu yewi leen uti yeneen ñu gën a ndawe ñooñu nekk ci àjjana jooju ba dee dewaat ci àjjana ju raw jooju xam nga bokkul ak ki nga xam ne dafa takk ndigam ne du takk jabar hmm? waaye teewul daalika fadlullah yuuti man yasha nga xam ne kon yàlla lu ko neex lay def waaye daalika fadlullah jooju nag Cheikh Omar nee na moom la yàlla jox itam Cheikh na Ahmed Tiyaani mook njabootam wala neel presque daal ñoo ko moom sax loolu nag ku ko xam noppalu ci lu baree bari dafa mel ni tënk na nag li mu bëggoon a wax yëpp mu ne wax naa ci fasl bi muy trente sixième fasl bi wax dëgg yàlla loo xam ne dëgg dëgg dëgg ku bëgg gëm dégg nga fi loo war a gëmi mais ku ku war a weddi itam man vraiment manuma ci yow dara mais nag avertiroon naa la pour ne bul weddi ndax nee na sax maa ci attardé wu mais presque fas yi ko précédé li li ma sonnoon pour nga bañ a weddi foofu lii moo taxoon wala dëgg mu ne sonnoon naa ci kon jarul woon sax may tardel fii attardé wu ci ay ñuy weddeek ñu mënul weddi ndax jiitaloon naa ko ci fas yu jëkk yi waaye daal li ma lay ciy yokkalaat ci xam-xam mooy nga xam ne fadlullahi daayira la daayira boobu nag ku ci dugg amatul logique lii ma la jot a wax nag mooy li yàlla waxoon rek inna fi dalika la daal rappel la man kaana lahu qalbun ci ku am logique ku am xel nga am nopp wa huwa boo xam ne nii bu présent la di dégg dégg nga fi daal loo mën a xame boo dof dof loo nag ba weddi yow yaa koy yëpp te itam ku weddi itam duma rek fekk la ci nee na téere bi naturellement man maa ngi ko taalif pour dama bëgg yow mi ko jàng boo ci jugee doo weddeeti mayu nitu yàlla man loolu moo tax mooy illay ma taalif téere bi kon nag comme dégg nga ci loo xam ne ni tabaarakallaahu ay ngëneel la jiitalal naa la ay xam-xam yoo xam ne waratul jur ngay weddeeti dara rawatina nag